magal bi ñuy jëm nag mooy daw ndànk daw ndànk defe naa sëñ Fallou moom amoon na benn code de la route boo xam ne tegoon na ko code de la route boobu bu ñu ko sàmmoonte te mooy li nekk ci code de kenn du am accident yàlla mun nañu musal ci accident yi ñuy wax ne rek daw ndànk àgg fa nga jëm defe naa ne loolu moom mooy li nga xam ne moom lañ ko mën lañ ko wax ñi nga xam ne ñooy dem ci magal gi. mesure bi jën mooy mesure bi nga xam ne ci place debout yi ci transport urbain moom la ñu defoon mesure boobu levé nañ ko defe naa yëpp moom lañ doon xaar ñu leen di wax ne nag. levé nañ mesure yooyu waaye nag xeexu jàngoro bi jógee gu fi xeexu jàngoro bi moom mooy port masque mooy rafet euh, euh, raxas say loxo mu set mooy aussi xam lu yenu maanaa nga def ko bu ñu la nee aussi mën nga am ay place debout mooy place yi nga xam ne autorisé nañ ko ci sa carte grise parce que oto bu nekk ci licence am am na luñ ci bind ne la nombre de place bii nga am yemal ci nombre de place boobu waaye feesal oto ba mu fees dell ba bunt yi du mën a tëju dégg nga ma nit ñi di lang ci oto yi loolu moom kenn waxu ko te dëppoowul ak jamono dëppoowul ak loi loolu aussi wax nañ leen ko ci arrêté bi nga xam ne jël nañ ko di leen ñaan ñu gën a sàmmonte ak moom oto yi aussi ñu koy aéré parce que oto bu nit fees war a def distance 10 15 20 kilomètres war nañu tamit di ubbi oto yi di ko aéré ba nga xam ne euh, li ñuy bañ ci jàngoro bi yàlla dinañu ci musal